te ba àddina tas keneen dootu ko bindi muy yawaaqitul faraaxi fi nasmin asmaaillahi usna waliyu wi fu ma sa jaar xekk ci maqaamu moom jox nañ la asmaaullahi usna waaye lañ ca jox sañoo mondoom mosuñu koo jox kenn loolu yàlla dogal ndax téere bi junneyu wëy ak juróom téeméeri wëy ak ñeent fukki wëy yu topp la waaye ku gis sañoo ma ndaw baatu allah lim ci wax rek danga xam ne kii asmaa lay usna xam gim ko xam wér na kat ndax allah moo njëkk ci asmaa lay usna baatu allah la jël tagg koo tagg koo xam ne boo ci paree rek yow xam yàlla ndax na ne wallaahu sirfun li saati sahluha hajabun jaamiu asmaak mu ne baatu allah sirfun dafa sell لساتي نيال جمي يالله سبحانه وتعالى كون الله اسم ساتي من واي سهنوا ميرم موم الله حجبون دا فتاي وار هيبي لول واي جامع اسماك مو بول تور ييب مو جاب الله ديكو تاغ نان ليس مدافعا ولا وصفا لوحدته يا واحد الله هادي كل الاسامي لهذا الفرد تابعه من صفه الساتي waaw ah, mu ne bépp turu yàlla yi li haasal fardi ñeel bi aji wéet gii may mooy ismu allah taabihatun